سعد من في دلا زره إن جندا من خياف قد سرى هد قلبي من خيال قد سرى قد سرى مولاي صلي وسلم دائما أبدا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 وسل بدرا وسل أحدا نفوس حد في لهم أدهى من الوهم مولاي صل وسلم كالمصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على

ما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك إليك رياه النصر نشراهما وتحسب الزار في الأكمام كل كم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور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 في الجاهلية والتأديب في اليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع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 lillahi wa'tasamu billahi fantasaru أزكى صلاة وأنماها وأشرف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

به العلم المحيط وما جرى بالقلم مأمور والقدر وعد نعمائك التي ما ننتبه على الخلائق ملكان ومذحشرا وعد مقداري فمن الذي شاء فاد به النبيون والأملاك وفدا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون حين أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطربون بها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 aataan

نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صبحا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصرا تقضي ديونا لا الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نافلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدنه السوار ثم الصلاة على شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفتي من قام من بعده للدين ينتصر وأن أبي حفص الفاروق صاحبي من قول الفصل في أحكامه عمر فضل عثمان ذي النورين من كملت وجد لي عثمان ذي النورين من كملت وجد لي عثمان ذي النورين من كملت له المحال شباب عبيدة وزبير صادة غرارا وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الخيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل

عبديه نجلي عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبذا الوزارة صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وسلم دائما أبدا على النصير ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع

يقول الوسيم السر أسمائك التي ما نمت بها على لا تبكي ولا تذر ndaw ñeeg sport tàggat yaramu ndaw ñeeg jàngal leen li ñuy wax football ak tàggat yaram nee kon nag loolu yàlla na ko ci yàlla defal ndam nee ba li ñu rëccoon ci sport yépp ñu dabu ko ci moom amin ne ngeen ñaanal ko ko yàlla na ko ko yàlla defal ci barke xadara bi ak barke pas-pasam ñu ngi koy nuyu di nuyu président de la république monsieur Macky Sall ne di nuyu ñi mu bokkal gouvernement bi yépp fa tabaarakallaahu lépp rafet na boo demee nga wax ko ni ko ndigal yi mu joxe woon ñu ngi koy def ni mu ko waxe yaakaar nañu li ci desit mooy gën a rafet ne bu ñu ko nuyoo itam ñu nuyu colonel Abdoulaye Diop ndax moom itam xam ngeen ko taxawaayam ak cofeelam ak léppam ci xadara bi moom itam teew na fi ñu ngi koy nuyu ci làmmiñu famille bi yépp yàlla na yàlla fay leen tànk yi ñu dikkee yi ñuy delloog yépp yàlla na nekk yiw nee di nuyu Youssou Diop ancien colonel douanier moom itam gis nañ ko bi ñuy dugg ci jumaa ji ñu ngi koy nuyu te ñu ngi koy tatagal nee di nuyu préfet Jibi Jàllo tabaarakallaahu dafa ñëw keroog ne ma ah sama soxna de dafa mucc ma ne ko lu mu am mu ne ma góor ma ne ko man Mansour si borom daara ji mu ne ma moo ne moo nekkoon ci sama nekkoon ci sama xol de ma bëggoon la ko wax noonu nga faf jiituma ci ma ne ko xam naa bu dul gàmm de ku judd rek moom nga war a tudd ci at mi ku judd rek moom nga war a tudd ci at mi nag ba ba at mi paase bokk gàmm gi nag ki ko moom gisuma ko woon. ne gouverneur Mouhamad Fali gisuma ko woon. dafa ñëw doon barkeelu ci guddi gi. dafa ñëw moom it doon barkeelu ci guddi gi. gouverneur. ne gouverneur. bu Kolda. bu Kolda. Mouhamadou Dia. moom itam teew na. moom itam teew na. tabaarakallahu. tabaarakallahu. la sëñ Babacar waxoon rek. xam naa la sëñ Babacar waxoon rek. keroog ba Alxaaji Rawaan nelawee. ne keroog ba Cheikh Alxaaji Rawaan nelawee. ko defaree ba teg ko. ba ñu ko defaree ba teg ko. dafa ni kii day jaam bu boroomam gërëm la. jaam bu boroomam gërëm la. taalibe bu sëriñam kontaan ci moom la. taalibe bu sëriñam kontaan ci moom la. mu ni jaam bu yàlla gërëm nag. loolu laal ci moom bokk ca ngërëm la. loolu laal ci moom bokk ca ngërëm la. ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla gërëm na ko de. radiyallahu anhum wa radu anhu. Seydil Xaaji Malik mi ko sosalit. yàlla gërëm na ko de. coonoom ci diine. moo tax bañ koy yërëm ci coonoom ci diine. moo xam ngeen coono bi yëpp lu taxam waay. mu ni moo xam ngeen coono bi yëpp lu taxam waay. ñu ni ko ah. dama bëgg. mu ni dama bëgg. su ëllëgee. su ëllëgee. su ma jiitoo di dem. ku topp ci sama gannaaw ku topp ci sama gannaaw. lu sëmb bu tilim tilim. la kenn du la wañ. <laughs> nee dafa am bés yàgg na. nee te dafa am bés yàgg na. dem benn invitation bu ñu ma woowoon ca assemblée. nee may dem benn invitation bu ñu ma woowoon ca assemblée. nee maa ngi ànd mbay si la ndeysaan rahmatullahi alayhi. mu ngi topp ci sama gannaaw. bi ñu ñëwee gendarme bi ni ma. porte bii bu ministre yi bii bu ministre yi la. bii nag mooy bu invité yi. ministre Cheikh Ahmed Tidiane la. ma ne ko man ministre Cheikh Ahmed Tidiane la. ma ne ko toppal fële. ma jàll. ko topp ma jàll. mbay si la topp ma. ñu dem ca kaw. ca rangu ministre ya nag mu toog. ma ne ko ku leen indi fii. mu ne ma yow. ma ne ko bu ëllëgee nii rek ma ne ko alamin wa ma ne ko ngir barke Seydil Hadji Malick bu Serigne Babacar ngir barke Seydil Hadji Malick bu Serigne Babacar Sy marhaban bikum fii xadratikum bayna ixwatikum yàlla na yàlla yokk yokk garaat yi yokk sañ-sañ yi yokk sag yeeg sutura yi tabaarakallaahu loolu lañ doon xamal nit ñi ku am gan dangay wax ni am naa gan. xam naa ñoom sax du ñuy gan. waaye nag. yàlla miy may. yàlla miy may. moo leen jox cër. moo leen jox cër. cër bu mu mën a doon nag. bu mu ko ko xeebal. na nga ca ànd. na ca ànd. te kontaan ca. te xam ni yàllaa ko joxe. ku am ku am cër rek. yàllaa ko ko jox. yàllaa la ko jox. yàllaa la ko jox. boobu cër nag. boobu cër nag. ku am xel. ku am xel. doo xeeb borom. doo xeeb borom. doo woyofal borom. doo woyofal borom. tabaarakallaahu. kon. suñuy mbokki taalibe lañu. suñuy mbokki taalibe lañu. waaye ñoo ñu sut nag. waaye ñoo ñu sut nag. dañ cee boole leneen. dañ cee boole leneen. monsieur le ministre. moo tax ñu naan monsieur le ministre. excellence. excellence. Diop si de nga xam ne moom. nee ki nga xam ne nag moom. Ah, moom mooy xamul ni ñu ko mën a tuddee ci kër gi. nee moom moom kenn xamul rek ni ñu ko mën a tuddee ci kër gi. mooy Diop si. mooy Diop si. léegi ma boole ko ci ay dara. nee léegi nag xam naa ma booleel ko ci ay dara. muy jóob si ay dara Chérif la kon nee ndax itteem ak taxawaayam rek ak cofeelam ci xadara bi séparéwul dara séparéwul dara xeebul kenn nee te loolu nag mooy li am solo de fexe ba fexe ba xàmmee xàmmee moom rekk moo am solo fexe itam ba xam sa bopp moom la ma waxoon ne moom la ma waxoon moom si Abubakar Si radiyallaahu anhu mi tëdd ne xaw naa luq bi sama bët keroog joxoñ ma ni ma ah, ah. na ngeen xam seen bopp ba xam-xam daj. ni ma xam-xam ba xam-xam daj. xam nga bu ca gën. xam sa bopp. ku xam yàlla. ku xam sa xam yàlla. man ma réer ba réer daj. mu ni ma réer ba réer daj. xam nga bu ci yéesam. réere sa bopp. mais su ko defee kon tabaarakallaaw ngeen di yaatal dënn yi rek ngeen di yaatal dënn yi rek di dimbali gan ñi di dimbali gan ñi di leen conduire di leen yóbbu fi ñu bëgg di leen conduire di leen yóbbu fi ñu bëgg gan kenn du ko yemale kenn du ko yar gan kenn du ko yemale kenn du ko yar ndax dañ koy rusloo kon gan kenn du ko yemale. gan kenn du ko yemale. gan kenn du ko yar. gan kenn du ko yar. ndax boo ko ko defee rek rusloo. te kat man kaana yumin billahi wal yawmil axir. fal yukrim dayfahu. xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. boo gëmee ni ëllëg. boo gëmee ni ëllëg. boo gëmee ni yàlla. boo gëmee yàlla. am na nekk na. xam ni am na nekk na. lii ñu ko moomale moo ko moom. lii ñu ko moomale moo ko moom. xam ni ëllëg it daa delluwaat ci moom. xam ni ëllëg it daa delluwaat ci moom. yonent bi nee nga teral sa gan. mu yóbbu la. mu yóbbu la. ba ca ruq ba. ba ca ruq ba. laaj la te kenn du ko fekke laaj la te kenn du ko fekke sëb sëriñ du ko fekke sëb sëriñ du ko fekke sa xarit du ko fekke sa xarit du ko fekke sa ndey du ko fekke sa baay du ko fekke sa ndey du ko fekke sa baay du ko fekke nee maag yow dong nee maag yow dong ma laaj la li ma la bëgg a ma laaj la li ma la bëgg a laaj boo xamee ni loolu am na nee boo xamee ni loolu am na yonent bi ne sallallahu wa sallam soo amee gan na ko teral gan la ci sëriñ Babacar waxoon rek ne gan nag la ci sëriñ Babacar waxoon rek ne fa muy dal ne fa muy dal xaju fa ñu ne ko fu gan di daal mu ni ci xar kanam nee bu xar kanam leere lu nekk xat-xat lu nekk xat-xat gan xaj na ci bu lëndëmee. bu lëndëmee. lu néeg yaaya. lu néeg yaaya. gan xajatu ca. gan xajatu ca. dëgg la. dëgg la. gis ku xéeréer yi nag. léeg-léeg gis ku xéeréer yi nag. te xéer baax na. te xéer baax na. waaye xéeréer yi day yàq. waaye xéeréer yi xéeréer yi day yàq. waaye nag doo ko ca topp nag. waaye doo ca topp. da nga koy jàjj tuuti rek jàjj bu rafet jàjj bu rafet bu dul ànd ak gëdd bu dul ànd ak gëdd ndax gan boo ko gëddee rek mu daal di jànnax mu daal di jànnax naa Serigne Cheikh mu mu wax ni. hôpital. dafa demoon hôpital. di seeti benn mbokku taalibe bu feebar. fekk moo yónnee ci moom. fekk moo yónnee ci moom. ni ko daal bëggoon naa ko gis. ni ko daal bëggoon naa ko gis. ndax sama feebar bi. ndax sama feebar bi. naa ni duma ci jóg xam naa ni duma ci jóg ma bëggoon nag bala maa dem barsax gis ko wax ak moom tuuti gis ko wax ak moom tuuti ma demee seeti ko nag ne ba ma demee seeti ko nag mu wax ma li mu bëgg ci njabootam yépp mu wax ma li mu bëgg ci njabootam yépp teg ca nag ni ma mbokki taalibe yi sama mbokki taalibe yi na leen digal na nga leen digal bu kenn dee waxati ci mbooloo bu kenn dee waxati ci mbooloo doonte day wax njaaxum doonte day wax njaaxum bu ñu ko ëyyu bu ñu ko ëyyu ndax am na ñu ko seen tabia nanguwul ndax am na ñu ko seen tabia nanguwul sama feebar bi sama feebar bi ci loolu laa ko jële ci loolu laa ko jële te xam naa ni ci lay des te xam naa ni ci lay des boo toroxalee nit ci mbooloo rek. boo toroxalee nit ci mbooloo rek. yaa ko rey. yaa ko rey. dëgg la. am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu juum. am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu juum. waaye nag dafa am noo koy jàjjee rek. waaye nag dafa am noo koy jàjjee rek. mu xam ni wàcc na règle bi nga xam ni ci la war a jaar. ba nga xam ni wàcc na règle bi nga xam ni ci la war a jaar. day daal di dellu si waat. day daal di dellu si waat. ndegam nit la. ndegam nit la. bu ko defee yëpp ñu di ko bàyyante xel. di yërëmante rek. di yërëmante rek. di dimbalante. di dimbalante. taawanu alal birri wa taqwa. loolu la alquran wax mais su ko defee kon ñu ngi ziar ñëpp ci guddi gi président de la république alxaaji Macky Sall dana ñëw samedi insha allah fii la yendu seeg ñun xam naa sax duñu leen wax ni mattu la wax ni ngeen génn teeru ko ndax eh, bésu bésu àggale burdu bi la dana fekk dëkk bi fees waaye nag ñu génn nag teeru ko ndax loolu la bëgg sunna ndax loolu mooy seen sunna ci biir li ñuy doxal ci biir li ñuy doxal teeru leen tàccu leen wan leen ni saf nganu te it ki moom yëf yi ki moom yëf yi waxee ni ko dana ñëw ba ma ko waxee ni ko dana ñëw maam alxaaji Malick laa ko wax maam alxaaji Malick laa ko wax tontuma ci suba mu tontuma ci suba ni ma góor gi nee na na gis nga gis rek nga gis Serigne Mbaye nga gis Serigne Mbaye Maodo nekku fi Maodo nekku fi waaye yaag moom ngeen taxaw ak seeni doom ngeen teeru ko teral ko kon nag loolu ndigal la ndigal nag dees koy def ne 10 heures ci suba insha allah ko defee kon nag yëgal nañ leen ko yëgal nañ leen ko ngeen bàyyi loolu xel rek loolu nag du politique teral gan la teral gan am na dof yoo xam ni nag loo wax rek ba jëme ko ci politique ñu jëme ko ci politique loolu du politique Serigne Babacar Sy dañu koy tappal médaille yu ba ñu koy tappal médaille légion d'honneur mais grand croix légion d'honneur nga xam ne mooy distinction bi France gën a matale nga xam ne mooy distinction bi France gën a matale kon tappal ko fii ci Thiès. cornichon ti tappal ko ko fii ci Thiès. gannaaw ba nga xamee ni bañoon na ni du dem. gannaaw ba nga xamee ni bañoon na ni du dem. ndax yooyu daal passé na ko léegi. ndax yooyu daal passé na ko léegi. ministre de la France d'outre-mer. ministre de la France d'outre-mer. moo jëkk a ñëw. moo jëkk ñëw. ni na dajeeg moom ndar. ni na dajeeg moom ndar. mu gàntal mu gàntal. nii. seet leen Abdul Aziz. seet leen Abdul Aziz. wala Seydil Hadji Mansour. wala Seydil Hadji Mansour. ñoom ñu dem ñu tappal leen. ñoom ñu dem ñu tappal leen ko. ñoo ca tollu léegi. ñoo ca tollu léegi. waaye man paase naa lool. yàlla dogal mu ni Serigne Cheikh. xam yàlla dogal mu ni Serigne Cheikh. téléphone ak sa bay Abdou ni ko mu ñëw dem Ndar. téléphoneel sa baay Abdou ni ko mu ñëw dem ndar. Fab Sampam Mansour ñëw ci saxaar. Fab Sampam Mansour ñëw ci saxaar. mu ni ko ah maa ngi doon wax Cheikh sax. mu ni ko ah maa ngi doon wax Cheikh sax. mu téléphoné bàyyam Abdou. mu téléphoné bàyyam Abdou. Ah, ma la France doutre dañu ni xaw ma ministre de la France d'outre-mer. dafay ñëw. dafay ñëw. ndar. ndar. te war ma tappal médaille. te war ma tappal médaille. naa ni passé naa ah, man nag yooyu defe naa passé naa ko. ay Mansour ni ko man nii maay dem. Cheikhul Hadji Mansour ni ko man nii maay dem. mu ne ko bu la neexee. mu ne ko bu la neexee. mu ne eh waxal Abdoul Aziz ni ko bu mu ñëw. mu ne eh waxal Abdoul Aziz ni ko bu mu ñëw. ndeysaan moo dem ñu tappal ko. ndeysaan moo dem ñu tappal ko. moo ñëw ko ñu dañu tappal gaañ.

waaye ndeysaan tubaab yi topp ci rek tubaab yi topp ci rek ni ko ah, il faut ñu toppal la ko mu ñëw bokk ci waaw mu ne ah xanaa bokk mu ñëw bokk ci waaw ñu ni ko ah gouverneur général du ñëw Tiwaawan mu ne ah kon de dana xaw a doy waar ah, na ndax man li ma wóor duma dem Dakar ngir médaille dong ngir médaille dong ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ko xanaa ñu def ko cees bopp ma ni ko xanaa ñu ni ko xanaa ñu def ko cees bopp mu ñàkkee pexe mu ni waaw cees bopp ñu tappal ko ko ndeysaan ak ak yarba ak teey ba ak kersa mu sëgg rek nee mu wax ci moom ñu wax ci moom lañu wax ci moom yépp moom gouverneur ci ay qualité ba noppi tappal ko ndeysaan nag akolaat ko nii fóon ko bi mu ñibbisee nag soxna si bàjjan astu si ni ko sëriñ bi man de sa photo fóonante bi laa bëgg benn carte man de sa photo fóonante bi laa bëgg benn carte mu ñu yee as photo fóon ni ko fóonante ñaara koy def ñaara koy def man fóonuma ko moom moo ma fóon mooy appalaat sew sew la fóon ba ne su ko defee nag kon pourtant teewul pourtant teewul ña naru la dem aljanna ña naru la dem aljanna wax nañ ci wax nañ ca lu leen neex wax nañ ca lu leen neex waaye jamono bu ne la mu laaj jamono bu ne la mu laaj nañ ko ko jox rek ku day ne président de la république di ñëw ci sa kër kay. ku day ni président de la république di ñëw ci sa kër kay. waaye loo tordu tordu. waaye loo tordu tordu. war ngaa mën a tàlli. loolu du politique. teraanga chef suprême de la nation. ndax mooy le chef suprême de la nation. bu yàlla ñëwoon ci àdduna. bu yàlla ñëwoon ci àdduna. li mu naroon a nekk. li mu naroon a nekk. moo ko nekk. moo ko nekk. waaye mu yàq ko jeng. waaye nag yàlla yàq ko jeng. du ko nuru. ba kenn du ko nuru moom yàlla. ba kenn du ko nuru. noonu lay doxale moom yàlla li mu bëggul yëpp dana ko jox nit ñi li mu bëggul yëpp dana ko jox nit ñi waaye am na ñuul ñuul nag bu mu cay boole mais su ko defee kon nag bu ñëwee ngeen teeru ko bu ñëwee ngeen teeru ko teral ko teral ko benn waxtu dinañ fi am wala ñaar benn waxtu dinañ fi am wala ñaar yiiwadi xaw fi xaju fi sos fi lu dul dëgg xaju fi xaju fi gor sos gor sos la muy xam yépp sax mais la muy xam lépp sax bu ko waxee bu ko waxee ñu génne ko ca rangu gor ña ñu ko ca rangu gor ña gor day xam junni gor day xam junni wax ca ñaar léegi nag léegi nag li xew li xew da faf sos mboole si da faf sos boole ci ngir doye di rek ngir doye di rek du doye di jullit du doye di mais su ko defee kon nag mu ngoog. Ah, ñu bàyyi ci xel rek bu ñëwee ñu teeru ko. ñu bàyyi ci xel rek bu ñëwee ñu teeru ko. teerul ko Seydil Hadji Malick ak njabootam. ndaw ni ndaw. du muus lu ëppi atam. du muus lu ëppi atam. mu ngoog. tey ñoo ko yëngal. tey ñoo ko yëngal. aqdamu umamil ardi. aqdamu umamil ardi. alhindiyun wassiniyun wal misriyun loolu lañu jàngoon bi ñuy jàng taarixul islam bi ñuy jàng taarixul islam xeet yi jëkk ci kaw suuf xeet yi jëkk ci kaw suuf ñett lañu ñett lañu indien yi indien yi chinois yi yi indien yaa ngay jaamu xërëm indien yaa ngay jaamu xërëm ndax hindokiya la ñuy ndax hindokiya la ñuy jaamu. wala buusiya. wala buusiya. muy bouddhisme muy bouddhisme. ñoo ko créer seen bopp. ñoo ko créer seen bopp. mu ñetteel. mu ñetteel. yahudiya. yahudiya. mu ñeenteel mu ñeenteel. yahudiya wa nasraniya wal islam. ñu ñu indi benn bu ñeenteel. xërëm la xërëm la ñay jaamul lislaam tey ñay jaamul lislaam tey maanaam jaamoo ci alquran maanaam ñay jaamoo ci alquran ñoo ñàkk defar seen jikko ñoo ñàkk defar seen jikko soxor soxor ba ñuy romb leen di teg ba ñuy romb leen di teg ñoom ña nga fa des ñoom ña nga fa des di tër xale yi di rendi di tër xale yi di rendi di leen dóor arme chimique. di leen dóor ay arme chimique. seen ruux du ko attan. seen ruux du ko attan. ñuy war di dal ba sedd bi. ñuy war di dal ba sedd bi. te seen yaram dawul. te seen yaram dawul. ñii noonu lislaam bi nag. ñii noonu lislaam bi nag. man voilà gis ngeen lislaam. lii lay def ci ay nitam. lii lay def ci ay nitam. lislaam du lislaam man leen wax dëgg yàlla du lislaam yonentu lislaam bi kay yonentu lislaam bi kay ba ñu ko dóoree xeer ba ko dóoree xeer yuuxu ko yuuxu dof baa ngi dof baa ngi dof baa ngi jigéen ñi xale yi jigéen ñi xale yi sànni ko doj sànni ko doj damm bëñëm damm bëñëm gaañ ko ci kostan muy nàcc gaañ ko ci kostan muy nàcc ba mu ci jógee. ba mu ci jógee. mu ñaan boromam. mu ñaan boromam. na ko may mu seet feneen. na ko may mu seet feneen. ndax nag doyadal gi ëpp na. ndax nag doyadal gi ëpp na. boromam may ko mu dem Madina. boromam may ko mu dem Madina. préparé fa boppam. préparé fa boppam. ba am fa fukki junniy soldat ak ñaar. ba am fa fukki junniy soldat ak ñaar. mu ñëw def si fas bu mu ñëw def si fas te booba Makka. te booba Makka. 360 familles. 360 familles. ñoo fa nekk ñoo fa nekk. ñooñu fukki junne ñaar dañ leen di lekk. ñooñu fukki junne ñaar dañ leen di lekk. ba mu ñëwee. ba mu ñëwee. mu ni mu ni. ku daw dugg kër Abi Abi Sufyaan. ku mucc mucc. ku dugg sa kër tëj sa buntu kër. ku dugg ci sa kër tëj sa buntu kër. duñ ko daj ji di la fekk ci biir. duñ ko daj ji di la fekk ci biir. ku daw dugg ci xunt yi làqu yi. ku daw dugg ci xunt yi làqu yi. duñ la fa ñukki. duñ la fa ñukki. waaye ku ñu dajal ci mbedd mi nag. waaye ku ñu dajal ci mbedd mi nag. lu la dal yaa ko teg sa bopp. lu la dal yaa ko teg sa bopp. wuti kaaba ga. wuti kaaba ga nag. allahu akbar de takk. allahu akbar de takkar naa sa. suuf ak kaw. suuf ak kaw. ba ñu naan malaaka yi da cee bokk. ba ñu naan malaaka yi sax dañ cee bokk. ban malaaka ban malaaka moo ci bokk. malaaka yi dafa xumb rek. moom kay dafa xumb rek. te jullit yaa bari. te jullit yaa bari. ba mu yeggee. ba mu yeggee. la ko intéressé rek la def. la ko intéressé rek la def. nangu kaaba gi. nangu kaaba gi. ci loxo animiste yi. ci loxo animiste yi. ñiy jaamu xeer. ñiy jaamu xeer. daaneel lu xërëm yi mu ñëw daaneel lu xërëm yi ni bilaal yéegal ci kaw nodd ni bilaal yéegal ci kaw nodd mu nodd mu nodd mu dugg ci biir julli ñaari rakka mu dugg ci biir julli ñaari rakka door a dem nag ca ñoom wax ak ñoom door a dem nag ca ñoom wax ak ñoom ba mu yegsee mu ni maa tazunnuuna anni faailum bikumul yawma qaalu xayran yiw rek lañu séentu ci yow. ne ko yiw rek lañu séentu ci yow. mbokk mu baax la. doomu mbokk mu baax. mu ni laa tasriba aleykumul yow. jeex na. faalewul seen maam sax. faalewul seen maam sax. la ko ñoroon. la ko ñoroon. mooy nangu kaaba bi. mooy nangu kaaba bi. mu dellu si ci loxo lislaam. mu dellu si ci loxo lislaam. ñu di ko aj. ñu di ko aj. na mu waree. def na ko def na ko. kon rey nit du ko ca fekk. kon rey nit du ko ca fekk. yeew nit du ko ca fekk. yeew du ko ca fekk. mettital nit du ko ca fekk. mettital nit ko ca fekk. loolay lislaam. loolu mooy lislaam. waaye waaye ñii lislaam. waaye nag tuumaal nañ ñëpp. waaye nag tuumaal nañ ñëpp. yi nga xam ni. noonu lislaam yi nga xam ni. ñooy tubaab yi. ñooy tubaab yi. ñu ngi ci dëgg nag. ñu ñoo ci dëgg nag. ñu ngi ci dëgg nag. ñu ngi ci dëgg nag. di yàq deru lislaam. di yàq deru lislaam. lu ne ñu bind ci lislaam. lu ñu bind ci lislaam. ñun ñoo nekk fii di jullee di werd kat. ñun di jullee di werd waaye ñoom kay ñu ngay def lu ñu mën. waaye pour yàq deru lislaam. pour yàq deru lislaam. parce que li ñu yëpp lislaam parce que li ñu bëgg yëpp lislaam daf ko tere. moo tax ñu noonu ko nag. tere leen sàcc. tere leen sàcc. tere leen njaalo. tere leen njaalo. tere leen naan sàngara. tere leen naan sàngara. tere leen lekk yàpp mbaam. tere leen lekk yàpp mbaam. te yooyu rek la bëgg. te yooyu rek la ñu lislaam nag tere leen. lislaam nag tere leen. loolu. ci bàyyiwul xel ci bàyyiwul xel doo nit ci bàyyiwul xel ci bàyyiwul xel doo nit su ko defee kon su ko defee kon ñuy jàng jikko lislaam rek ñuy jàng jikko lislaam rek xam nu ñu koy doxale xam nu ñu koy doxale fexe ba fexe ba ay ay du sooke woo ci ñun du sooke woo ci ñun jullit yi jullit yi dangaa mu ngi yegg seeg jàmm te lépp baax te lépp baax te lépp dana baax te lépp dana baax bu ñu jekkee ba insha allahu mardi mercredi ku ne dana xàqtaay jox moroomam loxo ni way sunu man fi dilaalam zaraho zaraho mamadu inna jundan min xiyaafin qad sara Mustafa